man maa ngi tudd Souleymane Diallo dëkk quartier Anta Mbacké su su quartier Escale ñun tey dañoo am lu ñu métti li ñu métti nag ah tàmbaliwul tey te li ñu ko gën a teg mooy suñu yi fi nekk parce que canalisation yee ñu ndox ah. sa Aminata la woon ñëw si Jacques Bonnet ba tey si monsieur le maire monsieur le maire benn la fi tek tànkam te ma si gën a metti mooy le lien naa des sapeurs pompiers ñun ñooy ay voisins les plus proches bi ñu lii dalee bi ñu ko waxee dafa man defuma ko mënuma ko gouverneur mosu fee teg tànkam voilà fan yëpp weesu fan yëpp weesu autorité politique yi ñi ngi war si dëkk bi def di def ay meeting autorité pël ñëw def ay meeting kon ça veut dire que Diourbel ñoru leen Diourbel ñoru leen lañ lañ bëgg ndom bay tànk dañ bëgg te damaa jàpp ne ab ab maire kay ku bëgg maire kay mooy pour ça askan la askan la ñun ñun li ñuy merti mooy leen naa sapeurs-pompiers bi monsieur le maire ñoom ñaar suñu dëkkandoo nañ nous sommes à zéro mètre du maire nous sommes à zéro mètre des camps sapeurs-pompiers moo tax li ñuy njëkk a demandé monsieur le président bu déggee suñu appel ko fii jëleel parce que moom moom soxla askan bi ñoru ko gouverneur bu Diourbel ñun ay ay jafe-jafe la ñuy indi ndox mi ça c'est-à-dire c'est très malheureux c'est très parce que ndox moo xam ne une année mi ngi fi est-ce utu daaw la ba utu ren man mii di wax bâtiment ba ma génnoon daaw ba fii may wax yow nekk ma si ñaata nit ñoo génn seen kër xam ngeen barax barax fu muy sax rek xam nga ça se dire c'est dangereux nous sommes dans une insécurité totale mais ñi nekk dëkk bi ñoom il s'en il s'en fout ñun ñi ku ne. ñun ñi kenn ku ne individuellement dem nga seeti préfet dem nga seeti gouverneur dem ga seeti leen naab kii bi dem nga seeti autorité politique mais ñoom Diourbel ñor leen Diourbel yi oublié du du xoolal du autorité rek même président Macky Sall ah dafa fàtte njaareem te soxna Marème fay Sall dama yaakaar ne dafa dëkkandoo la woon démb Marème fay sal pré jabaru njiite réew mi ñun démb suñ dëkkandoo woon jàpp naa ne ñun am na vraiment mérité nañ leen lépp loolu xam la mais ñi nga xam ne nag dañu koy xamal Macky Sall ñi bëgg a jël suñ gox gi ñoom ñëpp ñooñu amul ñu benn njëriñ parce que damaa jàpp ne daaw ba ren mënu ñëw si amul kenn ku ñuy indi assistance ñu lu ñu assistance loolu tey suba ngoon waxtaan ak directeur de l'ADM waxtaan ak directeur de l'AGETIP waxtaan ak waa ONAS dara dara dañoo yàpp dañoo yàpp surtout ñun waa Cheikh Anta amuñu éclairage amuñu assainissement asmala amuñu route goudronnée saa bu projet ñëwee PUDC beeg leen lépp lépp li ñëw njaareem même bu dee un mètre de route amuñu ko bu dee amuñu ko bu dee un amuñu ko kon daa ba jëkk Diourbel est fatigué sonn guddi dañoo sonn bëccëg ndox mi moom bouché wu c'est-à-dire ñun ñoo nous sommes très inquiets ñu dañoo jaaxle yàlla matim ñu dëkk si quartier bi yëpp ñun saa bu xiiñ dañuy tudd yàlla waxuñ ah ndox mi non non ndox mi ñoom dañoo defar ab tëli si PIDC bi mu jaar kër Baye laay génne école kër yéeli élémentaire bi affaire bi def pant parce que ñu dañoo dëkk si zone bu baax ko ñoom saa bu projet amee si li ñu wër dañoo war a calculer côté y a un une zone basse loolu dañu ko war a bàyyi xel ndox mi jël kër kër Baye Laay si PDC bi lépp fii lay jógee canalisation bi da dañoo jël bassin de bi def ko en hauteur te ñun ah, ñu ngi dëkk en bas xamala ndox mi di ñëw suñu kër ñu leen ko sans pompe ñu leen ko guddeeg bëccëg ñu ñu ñuy jaay ne da ngeen dëkk si yoonu ndox ma leen non yéen da ngeen ñoo yab man moom autorité yi ma toog wax naa ko da parce que mënuñoo nekk 2021 ngeen ñu wax da ngeen dëkk si yoonu ndox man na ko pont Saint-Louis bi man dama am chance nekk témoin bi ma fekkee tubaab bi di si di ko sëkk non géej bi laa la wax man par chance ma jógee Matam fekk ñuy sëkk géej bi pour defar pont bi kon sàkkamaa lii nous nous habitons à 500 mètres si ONAS bi barki démb nañ xëccal ONAS cité ouvrière ba préfecture daf naa jàpp ne li xëcc ONAS cité ouvrière ba kii war nañu mën a xëcc parce que nous sommes à 500 mètres kii bi non ñun ñàkkuñu fayda nag ñun waa Ndiém ñàkk fi dañoo bëri kóllëre dañoo bëri kóllëre ak yar. depuis ba mbënd mi amee ba léegi depuis septembre ba léegi la koñ bi ñëpp génn seen i kër. amul kenn koo xam ne luye ji woo guddi keroog mag ñi dañ leen doon tungoom Pa Sakho ñu ngi koy yóbbu ba as fële ndaayaan fële mujj gaañoo xam nga ne loolu gënalu ko ci ku dëkk ci koñ pendant quatre-vingts ba am cent ans te loolu mësta am suñu waxee ñu ne vallée du bi vallée du Sine bi dëgg la mais mën na mi ni ko indi gouvernement ñooñu ko indil ñooñu ko yeb ndax seen canalisation yi ñu mal fabriqué loolu mooy suñu problème bu metti ah ndax mbënd mi metti na trop métti boo xam ne fuñ ko après yegg na ñun ñëpp la suñu bagage yàqu amul kër goo xamante ne gii boo ci duggee rek ndox mi du sa sa wodduwaay bii lay yem man ba may génn sama bagage waa kër noonu te ñëpp même chose xale bii génn àddina suñu kër ci mbedd ba fa la daanoo man maa ko génne ci ndox mi maa ko génn ci ndox mi ndax yaayam këram dafa fees mu daw ñëw suñu kër ba mu am ñetti fan xale bi génn ci biti ci ndox mi la wadd te kenn yëgu ko ah, ba fa la génne àddina xale bi Ousmane Wagne di doomu Pape Seyid wañ ak Abibou Abibou ah 20 mois la am xale bi vint mois la am 20 mois la xale bi am xam nga ne loolu naqar gënu koo metti ah Abdou Ngom ñoom ñii ñëpp bañ leen di génn seen kër yi keroog kenn xamul fu ñu jaar 4 heures du matin yeewu di génne mag ñi di tungoom xale yi di boot xale yi ndax bañ xale yi lab xale yëpp ñu génne leen coono nag lañ nekkee boobu ba léegi ñëpp lu luye xam ngeen ne lu yaas metti na ndax njaareem gi kuy xoslu loo lekk wëlbate ko di fay ñaar fukki junni ak ay ñaar fukki junni ak nangam ci location metti na nañ ñu dimbale soxlawuñ ceeb soxlawuñu dara canalisation la ñu soxla nañu canaliser nañu bu taw bi xasee sóob dañuy jóg toog ba ba set ndax suñu doom yi duñ leen mën a nelaw ndax xale yi bañuy bañ ñu lab ci biir ndox mi ñu nag dëkkatuñu si kër yi daanaka génn nañu ndax sonn nañu lool nag soxlawuñu ceeb soxlawuñu dëwlin soxlawuñu dara ndimbal yu njëkk yi jotuñu si waaye ñun soxlawuñu ndimbal ndax kenn ku ne lu bay daan dunde ba sax si ki mën na koo dunde ba léegi léegi nag xam nga lu ñu bëgg ku ñu dimbale si ndox mi ndox mi daan nañu bëgg ku ñu si dimbale ndax jabo suñu télé yi yàqu nañu seetaanatuñu télé ordinateur xale yi élèves yi yàqu nañu gisatuñu dara sonn nañu nag gannaaw yàlla daal ku ñu dimbale la ñu bëgg auditeurs bu ñu mën a dimbalee nag woo nañ la mais soxlawuñu ceeb soxlawuñu dawlin ndimbal daal la ñu bëgg waaw. kër yi kër yi ndox mi nangu bari na takku na ëpp na téeméeri kër ëpp na téeméeri kër ndax loo bu ne da ngay génn bu naa nawet jotatee da ngay génn boo génnee dem luyee ji bu nawet bi wàccee nga ñëw bala bu asamaan si soobatee nga nekkaat loolu sonn nañu nag wax dëgg yàlla.